moom mooy responsable moralu télé bi fa tabaarakallahu ànd kook njaboot Seydil Hadji Malick ci turam ak turu xalifa bi ak turu njaboot Seydil Hadji Malick yëpp ak turu taalibe yi nekk ci departement Mbour yëpp ñi ngi jaale sëriñ bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla wone lay ak way juróom mu tedd wa mu teg ko ci loxo Cheikhuna Tidiane radiyallahu anhu mu teg ko ci loxo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari baat rek nga wax ñu ko ci góor gu tedd googu ndax ñu mën ci roy ay jëfam ndax alquran day euh, dañuy wax ne yéen dafa wax ni euh, dañuy wax ni bi zikri salihin tatanazaru ruhamat te yéen bi sallallahu alayhi wa moo wax ni uskuru maasina mawtaakum te ñoom ci góoru yàlla la ñu bokk kon bu ñu demee war nañu am lu ñu fi bàyyi loo xam ne ñi mel ni man buñ ci royee rek mën a àgg ci seen yoon fa tabaarakallaahu alxaj Cheikh Ahmad Tidiane li ñuy wax rek mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna euh, ci yàlla lañ jógee te ci yàlla rek la ñuy la ñuy dellu te ki nga xam ne moo fi jóge tey di Cheikh Mouhamadoul Aqib Ibrahim Niass doon doomi baay bu baay bu baay gërëm bu baay bëgg fonk ci jamonoy ndawam lool mu teel a sotti teel a jub ah mën nañoo wax xadis bi yonentu bi sallallahu alayhi wa wax ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yi jullit mooy ki jullit ñi mucc ci lox ay loxoom ak ayu làmmiñam Cheikh Mamadou Aqib bu ñuy def témoignage si moom li ngay njëkk wax rek mooy ku noppi la woon ku noppi te ku noppi rek mucc ku noppi la woon doo ko fekk mukk muy muy muy wax daawul wax lu bari te làmboo xam-xam bu bari lool dégg nga kon jullit ñi mucc nañ ci ayu làmmiñam mucc nañ ci ayu ayu loxoom dégg naa ci imam Cheikh mu ne Madina bii képp ku doon dénkaane loo xam ne bëggoo kenn xam ko moom nga koy dénk képp ku doon dénkaane ci loo xam sa secret la bëggoo kenn xam ko moom nga koy dénk ndax ku mënoon denc secret la ku xamoon lu bari la te noppi lool nekkoon na imam ci jumaa ji ji diir mu nekk ñaareelu imaam bu imaam ñëwut moom mooy moom mooy jiite. dégg nga waaye wër gi yaram mayatu ko woon mu nekk di kontine ci ci ci jumaa waaye daal pour ci gàttal ku dëddu aduna la ku dëddu aduna mooy Cheikh Mamadou Lakhib Ibrahima Niass dégg nga ku doon dimbale jaami yàlla yi ci zahir ak ci baatin ku doon faj soxlaay jaami yàlla yi la te nag doo ko dégg mukk dégg nga ku baax la woon jullit la woon ci gàttal ndax buñ nee jullit rek mooy ndax li Seydina Alioune Cissé seede woon ci Baye bi Baye gaañoo ñu koy denc Seydina Alioune Cissé moo def témoignage waaye lan la wax sëriñ bii jullit la woon jullit amut a lépp waaye Cheikh Amadou Akhi bi li ñu wax ci moom rek mooy jullit la woon liggéeykatu baayam la woon xitmaal na ko ci muy dund xitmaal na ko ci mu génne àddina ndax baay wax na ne inna allazina xadamuuni naalu muraadahum saadatun wa maalun wa man aasa shahaada iyaanan wa man maata yafuuzu wa zaaku kulla zamanin wal mawtu Ah, la laa yaduru xat man saida bal huwa raaxatu li man xat rachada bàyyi nee na ñi nga xam ne ñu ngi may liggéeyal jot nañ seen tef bu ñu guddee fan dañ ko gis bu ñu gàttee fan dañ danañ danañ danañ texee mu ne nag ah, li may wax mooy ah, dee du lor ci ku ci ci ku texe waaye noflaay la noflaay la ci ku texe kon dundam gi yëpp noflaay la deem gi noflaay la alhamdulilah bi xàmmeewul dund ak dee laanu fariqu da nga baynal mawt wal loolu la wax ci moom rek yàlla na yàlla yokk ci fa nekk yàlla barkeel ñim fi ba bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam incha allah amin ya rabbal alamin jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane kontaan nañu bu baax a baax xam naa waxtaan bi gàtt na mais riche na waaye tamit xam naa ni demande sociale laay def ànd ak téléspectateur Aynou Mady ndax buñ nee Aynou Mady mooy bërëb bi nga xam ne Cheikhouna Tidiane Chérif fa la gane àddina yow ngay turandoo seexu Cheikhouna Tidiane bëgg seex lool ñëpp xam ko faaw nag nga may ñu émission boo xam ne moom ayu bés bu nekk dinañ ñëw kër ga nga bégal jaamu yàlla yi ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane loolu moom Aïnouma TV ñu koy sàkku ci yow à travers Serigne Habib si Abdoul Aziz Ndion mi nga xam ne mooy directeur télé bi man maay directeur programme bi te man maay yow yaay man fa tabarakallahu loolu moom incha allah taala xam naa di xam naa di ñu ko may moom incha allah incha allah loolu dina am incha allah kontaan nañ ci ndax waxtaanee Cheikhu Tidiane farata la Baay wax na ne aleykum bi hubbil xatmi واسعوا لذكره فرادا ومسنا واسمعوا كل مسمع Baye nee na maa ngi leen di dénk na ngeen di waxtaanee Cheikhou Tidiane na ngeen bëgg Cheikhou Tidiane waaye na ngeen koy waxtaanee kon waxtaanee Baye ñun farata la si ñun ku ñu ci woo rek allah dañ ci dañ ci dañ ciy kontaan macha allah maa ngi taxaw ak euh, Cheikh euh, Ahmed Mohamed Fallou Baye di tuddkatu yàlla bu mag macha allah xam naa ne comme tudd nga Cheikhou Tidiane yi du ñàkk mu yëkkati même bu dee ñaari béy du Cheikhou Tidiane la ñu barkeeloo ko incha allah. ah mi ngi noonu téléspectateur Aïnou Mady li lañ leen indi indiloon fii ci stade Caroline fay ci esplanade bi yaa Cheikha Mariama tabaarakallaahu ànd ak njabootu maam Cheikh ibrahim yi nekk ci mbuur yëpp ñuy màggal tey di barkeelu ci guddi gu tedd nga xam ne maam Cheikh ibrahim ci la gane àddina radiyallahu taala anhu di ñaan yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem fa tabaarakallaahu di jaajëfa Cheikh Ahmad Tidiane waaye di jaajëfa sunu caméraman bu baax bi moom taalibe maam Cheikh Ibrahima la moo tax dafa sawar lool ci programme maam Cheikh Ibrahima tabaarakallaahu muy Seydou ñu ngi koy ziyaara baax di ñaan yàlla dëgëral ko tabaarakallaahu kon dañuy jox rek Cheikh Mouhamed moom mu tëyal ñu jotaay bi ci taggal ñu Cheikhuna Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu anjaba ghayra saydi summa maatu ليس مرأة ومرأة غيداء عما أكن جلاء سيخ لفاس قصد علم الحديث نعم الجلاء ما كذا سيق في صحا راسنينا مقبلا للإله ذاك هباء واتى تلميذان يات رسو علمان ذن كباب على الحلا زتداؤهم حين لم يبقى للإمام مرامون غير زور العرود ذاك صناء سقتجا مينون الشريف رضي الله تعالى عنه تبارك الله حمنا لو نخجو mais xam naa mook sëriñ bi moom ñooy bokk émission bi fa tabaarakallaahu loolu nag tabaarakallaahu ñu ngi ñaan képp kuy taalibe rek képp kuy julit nga abonné ci Aynou Mady TV ndax tele diine ji la sëriñ Habib si ibnu Alaaji Abdou Aziz Dabakh daf ni fépp fu diine ji xewlee bu leen seet kii bu leen seet kële fa tabaarakallaahu te diine yi Sénégal nag ku ci génne ma Ibrahima Niass yaakaar naa ne li ngay dese du bari kon mbokk yi mi ngi noonu ba beneen jamono incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 te yitte yow taaliba Cheikh Sidi Ahmed tiijaan bi man Oustaz Habib li ma lay wax mooy télévision la boo xamante ni sa yitte na nekk ci moom sa abonné na nekk ci moom waaye sa njàppandal na nekk ci ñu moom ndax lan nga bégale ko Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane